Thank you. Fatul yeah. Baay yaay ñaanal ñu toog ci réew mi liggéeyal Sénégal baay yaay ñaanal ñu toog ci réew mi liggéeyal Sénégal dina ñu daal di gisee ñi bisee ñibise ñibise dina ñu daal di gise ñibise dina ñu daal di gise ñibise gone ga demoon géeju ndaaya xol baa nge xol baa gone ga demoon géeju ndaaya xol baa nge xol baa Bien sûr, euh, il se nomme Abatine, euh, mais de son vrai nom, euh, Mamadou Maktar Gueye est un artiste sénégalais euh, né à Rufisque. Il a su évoluer dans la musique en intégrant différents groupes de rap comme Manaji Possi, Ahmada, Andan, avant de se lancer dans une carrière solo. Il se nomme tout simplement Mamadou Maktar Gueye Abatine, qui est notre invité de ce jour. musique, il nous fait penser aux si 14 euh, ans 14 ans euh, ci batolo djola mi nga xamantene dembu ñu ko doon waxtane mu nekk ak euh, bi nga l'actualité politique et sociale s'installe bien sûr Pape Ousmane Cissé reçoit aujourd'hui monsieur Bamba de son vrai nom cher Abdoulaye est un homme politique sénégalais il était maire de la ville de Saint-Louis candidat à l'élection présidentielle sénégalaise en 2012 Cher Bamba et membre du Front pour le socialisme et la démocratie, Benno Djoubel, FSBBJ. Donc, il a été nommé ministre dans le gouvernement de euh, M. Abdoul Mbaye. Donc, moi tamit tey dañu nar a vous parler li nga xamante ne jëm na ci actualité euh, ci réew c'est important waaye xam ngeen ne euh, ki nga xamante Fatima borom bébé maman tey nag indi na rubrique bu mucc ayib bobu nga xamantene duñu du ci di len instruire di len informer c'est important waye tay limi muy moy pourquoi pourquoi santé est-il bénéfique pour euh, les bébés c'est important donc euh, lan mo waral loolu ak njëriñ bi nga xamantene amna ngir di euh, de woyal sa dom hein. c'est important buñ fa jógee dañu and ak ki nga xamantene mom moy Nanette borom 14 millions de problèmes aujourd'hui dañuy def suite ak fin li nga xamantene mom moy tontine waye tay nak da ci dalal oustaz bi nga xamantene moy oustaz Mamour Fall mom mo n'a a waxtaanee loolu noonu joxe ci xalaatam inconvénient avantage ak li nga xamantene mo ci nek ci biir réew euh, ci li nga xamantene mom moy nat waaye xam ngeen euh, tous les mardis elle fait partie de l'équipe bien sûr elle vient avec la rubrique euh, mode et beauté trucs et astuces muy Myriam aujourd'hui elle reçoit Bafodé Bafodé muy styliste nek un grand créateur di def ay yu am solo ci bir Sénégal rawti ci doli ci Afrique donc tay tamit dinañu gis lepp li nga xamantene ci xarañam ci liggéeyam ndax c'est un jeune plein de talent bëgg li nga xamantene moy développement wu réew mi c'est important buñ fa jógee nak xam ngeen sale ah, bi plateau consultant ah, donc euh, tout de suite et maintenant bien sûr nous démarrons avec l'actualité en compagnie de Adjara Cissé ah, ci c'est tout de suite Très bien, nous démarrons l'actualité euh, sénégalaise, toute la palette de l'actualité de l'Internet à Très bien Nicolas, nous commençons à Tubeuse avec Dakar qui révèle que Karim Wad et Ibrahim Abdoukhalil Dibibo Bourgi euh, gagnent leur bataille contre l'État du Sénégal sur l'affaire des deux appartements euh, situés dans le 6e arrondissement à Paris que l'État du Sénégal avait saisi. Exécution de l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite créé qui a condamné un ancien ministre et l'homme d'affaires pour, enrichissement illicite et complicité euh, de ce délit. Le tribunal de grande instance de Paris euh, vient de débouter l'État du Sénégal et sa demande au niveau de la 32e chambre du tribunal de grande instance de Paris a été rejetée en bloc en même temps que toutes ses requêtes. donc justement Taïdaka Dakar Actu le euh, fonio, ci li nga hmm. moment sera justice ci Bibo Bourgi ñaar appartement yoo xamante euh, état Sénégal daf ci bëggoon tek loxom tay mhm. jii euh, le tay tey jii euh, fessel ni que ni lolu ñom gagné nañ bataille bi tay donc.

Euh, man sama jangat bu gatt bu ma ci am ci affaire bi moy loolu sama gis-gis personnel la. absolument moy que ni état bi limu waxone ni dinañ top kep ko xamantene japp nañ ni da nga loubal alalu askan wi. Mhm. te dañ yàggoon wax ni dafa melni ni Karim Wade rek lañ doon cibler il faut que ñom pour ñu deugal ni effectivement Karim Wade dafa jël fawlu mu gatt gatt dañ tek ci loxoy sénégalais ni li ci la bok donc ce qui fait que ñu ngi topp. Mhm. ni fii la dugg.

comme argument pour mon également porte parole gouvernement du Sénégal Seydou mm. à chaud donc cadre a France dañ pas ça veut dire que France soxla position bi Sénégal mu ci France bu ci ci ci ce que mm. comme donc mm. pour dire que le la bataille est lancée avocats yi ñu ngi jubilé mais ce qui est sûr et certain que recours dañ ko dugal. fu muy mujj nag bu ci kanamee dañ xam dara. très bien. Cheikh Abdoulaye Bamba Djey mu ngi fi donc dinañ ci waxtaan ak moom mu wax ñu lan mo ci jangatam ci situation bi nga xamantene Dakar actu euh, xëy na fësal ko. président Faye d' abord dama leen di remercier yéen merci euh, beaucoup je suis très heureux de de me retrouver ici. Mm-hmm. mais li am solo mu bëgg ku nekk xam ko. je crois que. Euh, Sénégal tay yi li ñu intéressé ñun ce n'est pas la suite du problème ou jugement li gëna am solo ba am solo moo di il faut que ñu jàngal sénégalais yi ni nek nañ ci un état de droit bo xamé ni ku jël alal réew mi. d'accord doomu ko mëna a doon. Mhm. dinañu góorgóorlu ba nga delloo ko. euh limuy laaj ñaari mbir le premier postulat bi moy état bi instruire dossier à travers le ministère de la justice da war jël ay matukayam parce que l'État du du ça nous représente nous absolument. garantie pour l'environnement environnement juridique du Sénégal mais aussi un environnement juridique international parce que euh, dara gënul bon américains toujours un combat que tu ne peux pas gagner ne mérite pas d'être engagé et je pense que pour c'était pour que la vertu de la leçon soit vraiment une réalité pour tout le monde. Et j'ai beaucoup plus l'impression, malgré les Martarois, que malheureusement jusqu'à présent, ça a été une grosse flop ben affaire bu rëy la bo xamee ni ci benn nit rek la yam ci benn nit la terre on est à plus de quatre ans après on n'a pas l'impression véritablement que tey jii sénégalais bi ci mbedd mi mm-hmm. et mom motax ñuy def gëm nañ ni ku jël alal réew mi di nga ko delloo c'est pas le sentiment que les sénégalais ont ils ont beaucoup plus l'effet inverse manam leneen le nit ñi gëm moy que ni eh, non seulement xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti mm-hmm. te plus nga gën ko lijjanti plus mu gëna baax ci yow te boo ko jëlee ba ñëpp xam ne jël nañ ko nit ñi dañuy wëlbatiku nekk surga di la tappoto di la tarbiya et ensuite on donne le sentiment pour le Sénégalais ordinaire que ni jarul ngay sonn fexel ba am ay ñaari tapalakat yu la jàppale rek. def mu nga ci génn. et c'est pas le bon message. tay ni bokkoon nga ci gouvernement wu euh, Abdoul Mbaye dégg nga li nga xamantene Pape Ousmane fofu la danelé muy France reconnaître euh, CREI yow loolu ban jàngat nga ci def. mais non attendez gis nga faut qu'on soit très sérieux xam nga munoo Samba munul kanam man gannaawam munoo atté France c'est pas notre domaine ñun Sénégal lañ yor li ñuy wax ci suñu biir ce n'est pas le fait d'aller poursuivre quelqu'un jël que ni ko rap, Nous avons bi état de fait 40 ans 45 ans 50 années d'indépendance Nous avons ne nit nous avons dil nit ñi ko ce qui est le plus important ce n'est pas principalement nous alal la ñu récupérer la France nous nous li gën am solo nous quelle leçon on donne aux jeunes quelle leçon on donne aux citoyens est-ce que nous ñu résultat bi tax na sénégalais bi gëm ni kenn waratul jël alal réew mi mhm. et c'est pas le sentiment que nous avons le reste nak ils n'ont qu'à être suffisamment professionnels pour monter de bons dossiers à l'étranger ndax Sénégal fi tapalé mën fi am mais bitim réew bo génnee foog nga wax leen lu pour jël si ñom dara Hmm. Très bien, euh, ça se poursuit, l'actualité euh, avec Adara, mhm. tubeuse. – Nous poursuivons avec Dakar Matin sur l'affaire Petro-Team. Euh, les statuts de l'entreprise révèlent qu'Alussal, le frère du président Macky Sall, est mandataire de Petro-Team Sénégal. Ces documents portent signature du notaire maître Moussa et remontent à juillet 2012. L'article 17 de ces statuts dispose que dès à présent, Alussal est désigné administrateur général de Petro-Team Sénégal dont le siège est situé à l'immeuble de K Plaza, euh, suite de Beyrouth du Méridien Président. Même si Alusal a cédé ses titres dans l'exploration euh, du pétrole à Corporation de Frank Timis, euh, les contempteurs du frère du président Macky Sall pensent que la raison est suffisante pour qu'il éclaire la lanterne des Sénégalais à propos de cette affaire. donc justement Dakar Matin dafa fësal ben document à des Aliou Sall moom moom moom euh, Petrotim à hauteur de 10 millions donc justement raison boobu moom lañ euh, évoqué comme quoi que ni euh, même bu nekkee 10 millions la sax donc invest ñeneen ñi jënd ñooñu ñaata lañ am donc c'est la grande question que s'est posée Dakar Matin donc dégg nga démb li nga xamante ne Pape Alé gën ñu ko indil gën ñu ko leeral ci wàllu li nga xamante ne moom pétrole réew non mais ñi nga xam ne sax ñoom ñoo fare ci nguur gi ku mel ministre de la jeunesse Mame Mbaye Niang moom sax dafa ne Alioune Sall il faut mu leeral. il faut mu wax nit ñi coowal Petrotim bi ko topp ak yi aju il faut mu wax nit ñi lan moo ci am génnoon na defoon na benn sortie on se rappelle mais sortie boobu ba léegi am ay points sombres yi des. il faut waaw parce que ci diggante bi mu defee sortie bi. ak fi ñu ci toll nii am ay évaluation ci am na ay évolution ci dossier bi. Mm. donc gis nañ de part et d'autre amna na ñoo xam ay sénégalais yoo xamante ne doomu réew lañ. mais ñu ngi ci bitim xew wax nañ ci ah, tey am nañ gan bu mel nii te mu nekkoon ci ci ci ci instance yi gën a mag ci état yoroon euh, lu sensible lu mel ni communication te ñëpp xam nañ communication lu ne lu ñuy nas di ko ci mhm. fësal ko ci askan bi ñoom ñoo yor li nga xam te ne moo ci mujj mooy fexe communiquer xëy na moom peut-être am na yu mu ci xam yuñ ci xamul ñu bëggoon tey mu leeralal mu waaw nga wax ñu lan nga

Pour que nga am pétrole, il faut des millions, voire même des milliards d'allées de sédiments euh, pour que nous transforme transformer ou nous donne un petit pétrole. Donc, si vous avez un pétrole, un gaz, ça veut dire qu'il y a des millions d'années que ça s'est fait avant nous. Ce qui n'est pas acceptable. Le gorme nous nango. Moi, que ni lolo am bonyo nous nek xewal mu bëgg muy bu tuku don musiba ci Sénégal te tambalé guñu sax. Et je vous donne des exemples très simples gis nga en dehors des démocraties yi nga xamee ne am nañu lu ëpp téeméeri at boo dee États-Unis wala Grande-Bretagne yeneen réew yi mu dal yëpp yii la leen di dikkee da ngay fekk benn boo xamee ne benn famille moo koy jël une monarchie absolue di def lu ko neex wala boog ay groupes financiers internationaux jaar fa teg deal jël affaire bi yóbbu. Mm. Euh, siphonné ko ba mu jeex tàkk des pays comme le Gabon euh, Angola par exemple ou la Guinée équatoriale. Mm. wala mu indi une grande corruption. Bohamen, do xam fu mu tollu do ko jeriño wala bok indi la déstabilisation comme cas au Irak ak Libye donc li am solo tay est-ce que jaadu na rek ben way tok ci soufu garab dina atayam dina atay pétrole tok pendant 1 million 1 milliard 2 millions d'années pour sédimenter ñu xey suba dal ni yeen sénégalais yi sédel ngeen ba paré waye yeen 10% ngeen ci am

waaye yow Sénégal lan moo tax nga woot moo nga jëli Maxtaar jël moo ko jël euh, euh, lu mu tudd. Maxtaar moom Maxtaar la tudd ah, wala. mais Ousmane Maxtaar non non artiste am. Ah, wala nga ñëw fekk Aba Thiam mu naan ataayaam ba biiram fees. Ah. nga xëy suba teg diil. Hmm. ci kawam Aba Thiam jël jaar Maxtaar. Maxtaar hmm. jël jaay Saala Bigué. Hmm. Saala Bigué soogay dem seeti Cosmos c'est pas sérieux c'est pas sérieux parce que boo c'était ñu ngi wax train bi jógee Dakar jëm AIBD. on a 400 mhm. milliards lañ ciy def. te rentabilité bi. Mhm. premier ministre bi si boppam moo wax Sénégal ni li moy sen réserve. donc mhm. pétrole am ngeen ko am ngeen gaz nangami million wala milliards de mètres cubes ngeen am. xam nga li nga am wóor dootoo làmbatu ndëgam jaambur dafa ñëw sur cette base là mu décaisser 250 millions de dollars. 125 milliards te yow at bu nek nga lepp lu ëpp lool lan moo la tere yow bu sa nawle indee dërëm nga jël dërëm taxi pour que demain non seulement ñu gérer les priorités yi sénégalais yi di dund tey ji mais ensuite ñu desal si pour doom yi ñëw yi ëllëg parce que ça doit être dafa war a doon lu ñuy noppal waaye warul doon lu ñuy fitnaal te dañu war a bàyyi dof dof lu gi ñu nekk ci réew mi maanaam séddale bukki bii bukki bii njuur bii sàmba bi sees njëkkante la te njëkk naa si ça n'a jamais fait un pays kon daal leeru leerul li ñuy gis ah, nii leerul. bu leeroon nga defee ne di nga gis coow lu bari lii yëpp jëm ci. mënul leer parce que xam nga li am solo mooy ce qui est important mooy que ni réew. Hmm. surtout njiit da nga war a am yërmande. def naa ni Saala Bigué moom dina ñëw ci mbir mi. ndax sama baay dafa ma daan di wax ni. ñaari doom ñoo am. Hmm. jëm ci réew maanaam ñaari leader politique ñoo am kenn ki nee na dafa yërëm réew mi keneen ki dafa naw réew mi.

mooy li nga xam ni moom la ñu xam ci diggante Karim Wade ak bi mu nekkee ci gouverneur ci papaam dama ni sànq bukki ba màttoon Ablaye Wade mi ngi baax ci matt Macky Sall. Hmm. ah bon Ablaye Wade problème moo doon Karim Wade. Hmm. Macky Sall te bu deful ndànk Alioune Sall. mooy doon problème mooy tax du mën a gouverner. Hmm. mais aussi bu nu jaxasee aussi lu bokkul. Karim Wade bu ñu nee tey jii France accepté ñu créé yi wu ñu appartement yi nekk foofu loolu. dama yaakaar ne sénégalais yi ñun waruñu ci commentaire parce que du suñu ndam tubaab bi mënuñ ñoo gëm ñun ñun kay ñoo leen gëm par naïvité mais ñun mënuñ waruñ ñoom mënuñ ñoo gëm seen doomi réew lañ de bi boobu am na nationalité française Karim Wade am na ko mënuñoo fexe fexe fexe ba seen appartement yi ñu am foofu ñun waa Sénégal wax na dëgg man noonu laa gisee gisati boobu jàngat d'accord mais li li li monsieur le ministre wax sànq dafa am solo mm-hmm. affaire bi du foofu affaire bi fan la ki def lu yoon nan ko teg ci yoon

nekk actionnaire ci benn affaire mais est-ce que na mu nekk est-ce que jaar jaar na yoon wala jaaru yoon loolu la ñu war a xool mais bu ñu ko jugé rek président la rek loolu dafay am benn affaire boo xam day mel ni sénégalais bi dafa gën sénégalais wala moom amul droit def lii hmm. te président bu fi jaar nag fal nga say mbokk Abdou Diouf ba mu fi jaaree Maguette Maguette Maguette Maguette Diouf a ngi ci woon <laughs> Abdoulaye Wade fi jaaree Karim Wade Doudou Wade ak ñeneen ak ñeneen ñi ngi ci hmm. Macky Sall bi mu wàccee léegi moom ne leen dinaa

moy que de buñu ñu ay nit jiital leen ñooñu ñoo am responsabilité aar ñu euh, gérer suñuy potentialité utiliser ko au meilleur des moyens pour que réew mi gis ci boppam et on n'a pas l'impression que ni sérénité bu baré dab na leen buñ doon wut ku ñu leeral dañoo doon li lëndëm doomu aadama hum. parce que li kay waral ni mu indi lëndëm bi rek moy que ni dafa xel mënul nangu lu 14 millions de doomu aadama mom

samay dom di fi dund samay mbokk nek fi ma yaakaar fi lu nek yaakaar fi jamm d'abord pour que nit ñëpp dund ci jamm je suis obligé en tant qu'acteur politique di wax lo xamé ni dafa ñu wara yok jamm te yok jamm du masla. seq ñom ñom pour masla ak ñom c'est notre argent suñu xaalis la du ñu ay kat on est actionnaire dans notre pays ah, li ñuy joy c'est nan la ñuy utiliser suñu nous bob xana nak deug deug deug deug lu ñuy fayda fayda fayda am la liberté de nous inquiéter sur les ressources du Sénégal c'est ça le problème il faut que nous ñi xam ce n'est plus un débat politique d'accord d'autres diggante Massamba opposition ak le pouvoir d'accord c'est ce qu'il faut pour que ñu am jamm tay parce que bu xalé yi nekké ci mbéd mi tayji bo waccé ci souf fekk fi nit di jaay tiaf hmm. wala muy jaay ndox wala muy nek ci ay jafé jafé hmm. yu mel ni rek tax siphonage bu metti mais man tay damay tiit j'ai peur parce que tout simplement aujourd'hui damay gis né dëkk yi nga xamante pétrole feeñ na fa tamalé ko ci Libye ñom Irak ak yooyu noonu ba ñi ñi jégué chaque fois da fay am ay jafé jafé yu méttee méttee méttee rawati ci doli ñun ñi nga xamante barki dem né nañu amna na na mais mënu guñ ko utiliser mais xam nga loolu lépp li koy waral yépp moy matadi suñuy kilifa ndax Serigne Touba exemple am ñu koy suivre Il wax ni ku aju mat dal di mat aju des dal di dess expliquer que de manière simple ni ñaari jigéen gi boot bébé maman ñu dugg ko Fatima lay waxal waaw train la kenn ki amna ba kenn ki ba brûlé nena buñu bu contrôleur bu féké ki fekk bo dom doom te te brûlé daf koy waccé kenen ki daf koy bàyyi té ñaari xalé yépp kenn fa yusi matub kenn ki motax ñu bàyyi fa kenn ki mata di kenen ki motax ñu waccé ko donc c'est ça l'analyse sociologique biñuy def ci suñu réew tay ji moy que ni dañoo soxlo

mais bu faites ni détail. gis nga ni ñàkk daal dafa am ci premier ministre mi yëkkati cadeau, ci coowal mbir moomu mais aussi est-ce que ci côté bi ñu féete ñun war ñoo mën andag ak mat gi nga fi wax sànq ngir naka lañ leen gunge mais bañ leen top ci coow leeg ñàkk a matadi bi ñu feeñal. xam nga nag lii ngeen di bëgg wax nii nag dama bëgg nga corriger ko bu baax a baax. Ah. matadi. Hmm. mooy toog di bat. matadi. ak ñàkk fulla ak sampu musiba ci réew mi refuser la transparence gis nga am réew bu la ci yàlla boolee maam Abdou dafa ni boo amee bokk benn réew nit am jóg di ko am pour yàq ga amul fulla gu toll non pour empêcher c'est parce que dañoo bëgg jàmm c'est parce que dañoo bëgg développement mhm. nit ñi dañoo bëgg am liggéey yi am kër ku am anam a non anam anam ñu ko anam négocier. Il n'y a pas mille manières de gérer un pays. Darna Il comme ni la nga un a engagement de a mais ne que son Il n'y jar pas de leçon de dafa ni lu mag def sa bu sa ni pouvoir bi. Mhm. keneen waratul dofati mhm on est dans un pays malade blessé xam nga fait dal dafa son, dafa metti ba nga ne xam nga indi sénégalais bi si boppam mu libretul sax pour mën envisager quotidien homme tellement dépense am dafa a li une faire des sénégalais légui bala muy rek le ministre bëgg di wax di la di di je m'adapte toujours je suis très résilient moi je suis résilient je sais que ni langage bob donc fan ci ah. ñu lu hmm. tax citoyen

di ko jaamu di ko tarbiya bu wootee ñëpp ñëw bu ne balaa muy tisori ñu ne ko yar xamu ko laa mhm. ñu fekk ngir yi nga xamee ne nag seen souci yëpp mooy transparence rectitude jël alal réew mi tekk ci yoon ñooñu ñuy def leen ay ennemis nii dañoo añaan mhm. bu dee Cheikh Bamba ñu ne non non non diñ ko tax xol bi dafa tàng <laughs> te xanaa dañoo fàtte c'est un mauvais perdant <laughs> dañoo fàtte am na bis boo xamee ni mhm. tàngoon na tàng boo xamee ne gisuma kenn ci nguur gii ba may taxaw sa assemblée nationale kenn fekkuma ci

ak kenn ko dañ koy ni c'est un très mauvais discours pour la jeunesse et il faut compliquer ah. carrément arrêtez. arrêté euh, justement man si 10 pour cent yi nga doon euh, yëkkati sànq si parce que da nga Sénégal peut-être 10 est-ce que ça dérange cher Bamba Dieye les 10 euh, du Sénégal parce que justement vous booy gis 10 et peut-être li ñu argument yi ñuy teg mooy que ni que amaguñ moyen yoo xamante ne mën nañu saytu ba xam fu pétrole bi Ah yow doo kese ah moom c'est très intelligente je te pourquoi c'est pas acceptable pour deux choses Voilà, que wala français richesse en affaire, quand on nomme un président de la République ou un leader au sommet de l'État c'est parce que qu'ils prennent des risques raisonnables mais le risque il n'existe plus puisque la réalité de la réserve est là ou des réserves donc comment yo compte tenu li nga est-ce que États-Unis gaz de système 10 la mhm. la Ou Londres pétrole de la mer du Nord 10 la Arabie Saoudite le pétrole 10 la pourquoi nous, nègres, nous comme les derniers de la dernière non seulement on ne traite même pas avec des états mais on traite avec des farfelus qui deal avec pas ça qui n'est pas acceptable Nous, les les des 400 milliards de Google qui autoroute ou le train AIBD qui euh, euh, est Dakar. Nous avons 150 millions de voyageurs. L'aéroport de Dakar, plus de 15 000 voyageurs jour le jour. Donc, si vous avez des doutes, et l'investissement, vous avez un risque de vous faire D'accord. 400 milliards de dollars, nous avons des problèmes pour nous. Mm-hmm. Nous avons des réserves. Nous avons du pétrole ou du gaz, mais nous avons alal y ni, des ndax am réserve gaz ak réserve pétrole qui am ay lingots d'or donc normalement bo taxawé ci marché bi am cent milliards wala 250 milliards de dollars 250 milliards de francs CFA yo xamé une dina double li Cosmos tech, ça ne pose aucun problème pour un état qui est dans la prospective ta xam nga ni ces relation de développement avec la nécessité de développer ton pays du tubaab moo la koy régler du chinois moo la à régler mm-hmm. yaa ko war a ñaq amuloo y a le la xéwal mm-hmm. nga am lucidité utilisée que à bon escient. très bien Fatima. voilà. Euh, xam nga ñu bëri bu ñu gisee ku mel ne comme Cheikh Bamba Dièye seen seen xel dafay dal ndax li nga xam ne ne euh, ci mbirum ticket présidentiel ba woon ñu bëri comprendre ñu woon euh, bi nga réagiré noonu peut-être si nga attirer attention ñu bëri te bu ñu ne grande question économique dafa fekk ne dafa dafa laal ay sujet yu mel ni pétrole mhm. te li ma leer ba leer am na comme ni nga doon wax am na sénégalais yoo xam ne léegi dañuy fan ay sàcc ak yooyu mais am na ñoo xam ne ne comprendre ñu sax lu xew xamuñu sax lan moo xew ñu ngi dégg ay pétrole Petro-Tim fee ay mm. Cosmos xamuñu lu xew xamuñu euh, ce qui se passe te bu ñu te affaire pétrole bi ku ci nekk da nga am part de responsabilité et man euh, je pense que comme ni ngeen doxalee woon ba li nga xam ne ne mooy ticket présidentiel ba woon ca temps Ablaye Wade ba ñëpp comprendre te mbirum pétrole bi dafa nekk loo xam ne tamit question bu sérieuse la ku ci nekk am nga si part de responsabilité man est-ce que yéen am na loo leen fas yéene peut-être ndax war ngeen mën a gën a yokk seen communication envers les Sénégalais pour ñu gën a mën comprendre euh, je te remercie beaucoup mais en fait li am solo te ñu wax ñun man parce que comme du question politique. question citoyenne la. affaire Sénégal la. Mm-hmm. parti. nous dafa yomb trop de ko ba mu yegg rek opposition pouvoir on est très loin de cela pour nous xamul nu mu may nañu bu Sénégal. waaye xëy na yenn saa yi du ñu am xaalis bu ñu ko jëriñoo bu ñu ko buñ ñu si mënee yegg. ñoo loo tax ñuy abbi borom yi xaalis yi kaay leen ngeen ñu jàppale nag ngir ñu ngacc ci pétrole bi pour jaay ko si marché bi mu doon xaalis ñu delloo ko si mm-hmm. ñu ne d' accord ñu ne léegi nag waa ji indi xaalisam. moom mooy bu bu indee xaalisam ba pare yow nag yaa moom pétrole bi ah parce que bu pétrole amulee kenn du def pompage. Mm-hmm. yaa moom pétrole bi mais bu ñu tiiree ba pare yow 10 pour cent ngay am.

gis na comme ni xeetu dóor yi gis na dóor bu bees mu dóor <laughs> dóor boobu nag la ñu mënul nangu dóor bi daal léegi fi mu mën a demee mm. dafa war a doon waratul doon tubéy yu paate ci paate kepp ndax paate moomul tubéy ji mm. li ñu bëgg daal dafa doon tubéy bu yaatu boo xamee ne c'est pour les 14 millions de Sénégalais très bien il faut qu'on est engagé mm. te loolu ce n'est jamais trop tard parce que demain li bon mooy loo xas ba signé tey jii bu ëllëgee bu ñu bëggee fecc affaire bi

mais ñi nga xamanteni ñoko ñoo ko doon xeex mu baña a au pouvoir mais biñu ñu ñoñu la tek ci wétam ben moy li nga wax sànq naan Sénégal duñu du fan guerrier mais sàcc ak yu démé non hmm. président Macky Sall nante yi dal président Macky Sall on se rappelle <laughs> bi ñuy de interdiction sortie de territoire <laughs> mais am na koo xamante ci ben régime bi la nekkoon. mais fu hmm. jël and ak moom. Hmm. donc genre yo nga xamanteni yeen yéen homme politique yi ngeen waro incarner lo xamni ñu mëna taxaw ñu xamni kat li ngeen ñu wax à la base war nañu ko mëna comprendre parce que ci yeen la njëkkee mais yaakaaru leen ni tay yeen ñi nga xam ne yéenay politique soxla ngeen ñu raxasaat seen bubb non du ñun rek dëgg la moom booy seet ñi yées ci réew mi ñun politiciens yi ñoo gën a bon ñëpp il faut on connaît le courage ah de dire ñoo gën a bon ñëpp parce que xam nga lu tax ndax ñoo am fitu ci réew mi ni dañu bëgg a jiite nit ñi ba pare te yoruñu jukko pour jiite kenn mais le vrai problème sama sëriñ buñ koy analyser dëgg dëgg dëgg c'est un mal qui est un mal sénégalais

pour fekk koo xamee ne day tappale ba ñëpp xam ni day d'accord bu waxee ak Sénégal ñu ne ko ça laaw ça laaw ça laaw ça on n'a même plus le courage de dire à un fossoyeur de la République que ñi ñi ngay taxaw du dem te warul dem et c'est ça le problème au Sénégal gis nga il faut que ku nekk si ñun interroger waat bopam pour que gis que tey solution bu simple laa la indi yow mi, fii ngeen nekk fi ci rajo ci télévision bi wala ci mbedd mi wala fu ku mëna a nekk sa bir kër ku nekk ci Sénégal xam nga koo xamee ne buñ la nee wutal ku jub muy jigéen wala góor di ko joxe te doo juum donc lan moo fi ndeyu bu tànn jotee ñu fàtte ñu ñëwee ñan. fekk tàppalekat yi gën a mag nga xam ne da lay indil oto yu dul jeex mu wóor ne ni liggéeyu ko nga wékk ko sa bopp ba pare bu ëllëgee nga toogaat di joy après bu la Bamba Dièye rombaatee hmm. nga ne que non yéen politiciens yi je refuse d'accord d'accord <laughs> très bien une dernière question voilà une dernière question il sénégalais bi ah. interroger boppam hmm. xam ni feebar bi man ak moom ñoo ko bokk la te tant que nanguwuñu man xam gu ma xam suma feebar. Mm. mooy tax may woote wallu pour que ngeen ñëw ñu àndandoo ñu jàppalante dimbalante. d'accord parce que soo ma surveiller ma surveiller la. ñu am ay règles yoo xam ne am nga fula bu ma wàccee yoon nga ni ma hey sëñ bi kaay wàcce nga yoon dellu si waatal. Mm-hmm.

Euh, manam dal ci côté bobu dang ci nopi wala dafa da nga euh, gis ni daal gisoo sa bob ci opposition. xam man maa ngi lu sax cette fois-ci que ñu ngi gor c'est bien. <laughs> vous savez pourquoi tu sais pourquoi bokkuma si. et je l'ai dit de manière très claire parce que gis nga ay mukallaf bu ñu andé ci ben mbolo bu fekkee dañu bëgg am vertu exemple bo démé ba mbolo ma nga bëgg ka tass wala ngeen bëgg ko tass mhm. da ngeen wara tok ni mënatul dem ñu tass ka

Assim. Incapacidade. <coughs> ok. Voilà, très bien. Donc, je vous rappelle qu'il est l'invité euh, de l'actualité politique et sociale. Euh, donc, Pape Ousmane Cissé ak euh, ki nga xamante ne mooy Adjara ñu seq ko nara waxtaanee lépp li nga xamante ne jëm ci wàllu actualité. Adjara est-ce que mën nga ma joxaat de actualité laata ñuy gën a mën a xuus ci ñu a mhm, très bien Minuterie Rebeuss ce que révèle l'autopsie du corps de Mbou avec Cineweb. les premiers résultats de l'enquête de la mutinerie de Rebeuss ont été divulgués. l'autopsie du corps de Ibrahim Mbou, tué mardi dernier, a révélé que le détenu a été tué par balle, informe une radio de la place selon le site. L'enquête commanditée par le procureur de la République révèle également que des corps autres que l'administration euh, pénitentiaire ont participé à la mutinerie. Euh, reste à déterminer l'auteur de la balle mortelle et de situer euh, les responsabilités sur les traces de services corporels qui ont été trouvées sur le corps du détenu tué. Donc justement, une scène web euh, moom moo article bi justement du ñëwaat ci autopsie bi nga xamante ni def nañ ko hmm. gannaaw euh, bi euh, Ibrahima Mbow ñàkkee bakkanam ci mutinerie

na am suite na am logique nañ koy évaluer Pour ñu ba war a ñu bàyyi pour créer le bees créer le comme loolu amul nag man leen man dinaa taxaw xaar ndax FSDBJ te leen j'ai eu énormément de difficultés bu njëkk ba mënuma leen jox explication leen dugalaat <clears throat> mais néanmoins les plus combat ou opposition

pour ak pour pour condamner que pour la même période bi nga xamee ni hmm. incapacité ak ce défaut ak ce déficit nous nga ko fa hmm. c'est pas juste parce que d'homme aadama bi bu fautez tamit citoyen la dafa am ay droits ak des devoirs absolument te li est firndeel mooy barki démboo Ndiaye ngeen le ministre de l'économie des finances mu ne baal na ay entreprises 50 milliards qui kuy wodd jot la woo di nga booti gam <laughs> yaakaaruma ko. waaw yow cinquante milliards ñaata prison nga ci mën tabax. Hmm. gis il faut que ñu. mais tamit dañuy daw prison yi de ndax nee nañu ku tabax prison yaa fay jiitu. mais ah, nit ku jub nit ku jub. waaw problème bi mani alal ji. du pour ma Samba du pour ma Demba pour Sénégal la. d'accord te am réew.

ak ay dérive ak dérapage yu jéggi dayoo moo si indi mooy problème la mhm. te Sénégal aussi feebar bi ñu am mhm. feebar bi ñu am mhm. benn circuit en mucc si policiers yi feebar nañ <laughs> politiciens yi febar nañu. Hmm. imams yi sax febar nañu. citoyens bi febar na société bi febar na. donc indi bee ko suus dem ma nga fa. donc il faut que ñu xam ces problèmes là ñu nangu diko pointer du doigt. D'accord. que Dieu régler et c'est ça la réalité. problème bi moom ce weesuwul lool. d'accord assumons hmm. assumons. Hmm. parce que gis nga le devoir de solidarité tay ji dañu bokk partager suñu réew on ne peut pas le faire sans être en concertation sans que ku nekk ñu jox la sa cër sans que li ñu am li mu tuuti tuuti ñu def ko fañ ko war a et ce sont ça les règles qui manquent et qui fait que nous am déficit du dund. Qui kii moom xam naa mu la ko ah. question plage Malika dañ may wo loolu euh, leer na nga ne bayma may la ko. 2019 <laughs> waaw. ñuy xaar Cheikh Bamba dieu candidat candidature ci 2019. Hmm. ba paré benen buñ la fi téggon tay ci réew mi. Cheikh Bamba Dièye tey lan nga yakane ci ngay njëkk sobu pour régler jafé jafé askan dernière question. sa question bu mujj bi lay laay d'accord ana caméra bi mi ngi nii. ni ngi ma xam nga ñun Sénégal xamante nañ xol ko xol ko Sénégalais bu nek la ni xamante nañu. je n'ai pas besoin de dire aux Sénégalais su fekkonte ni Bamba Dièye mooy président de la République ndax reddition des comptes dina am am dette hmm. ma ko diko wax. Hmm. ndax man bama ma nekkee sa ndax abdou bab dafa sàgganoon jël fa ca feeraayu pont Faidherbe ba ñaari bar tribunal la été deux mois de prison un mois de prison ferme le jam c'est un problème bi. Hmm. il faut que sénégalais bi ñu laaj est-ce que sénégalais bi pour faire confiance ñi nous savons nous ni c'est ça la question de fond. d'accord du problème Bamba Dieye la ko joxee nga teg ko ci yow. Ah, non eh, mani yi. Ousmane dama lay yóbbu dama lay yóbbu place ba de. Ousmane xam nga man dawuma baga ayca daanaka 2010 2018 mosuma daw baga ba nga ma gisee ba léegi mosuma daw bagaar fenn. Eh. c'est je suis un responsable. et j'aime ce pays. soxlawul won naan dama bëgg réew mi sa sa sama lepp da koy wane. d'accord mom la am te bu doon sama sogo le temps bi fi fiy dinañ ko valoriser parce que ñun suñu symbole moy vivre pour qu'au soir de notre vie, nous n'ayons pas le sentiment d'avoir vécu inutilement. D'accord. Donc euh, tout est possible mm. et tout est ouvert. Très bien. Merci beaucoup. C'était bien sûr euh, Monsieur Cher Abdoulaye Djei, euh, membre du Front pour le socialisme et la démocratie Benno Djoubel, FSDBJ donc Mounekon nekkoon actualité politique et sociale ci TMTC donc ñu ci sainte bu baax di ci gërëm Pape Ousmane Cissé pourquoi Aba waaw Abou Thiam moom sama turandoo sox noonu lañ koy oowee. ndax lan. ah man dama judd fekk. waaw ah, yow bu ñu lay woowee Abou Thiam war xam na moo waral xam naa sama turandoo dafa bëggoon Thiam. ba pare xam nga paa ñoom seen jamono dañ bëggoon affaire xam nga solu dem baal yi kërëb kërëb. <laughs> d' accord woon daal dégg naa loolu. Ah, <laughs>

parce que rap bon musique la musique bu bu la musique bu la musique bu la musique bu am base là. donc toujours intérieurement révolutionnaire xam nañ ko mais donc mu don nak niveau Tout. tamit aussi tamit dafa xaw dafa xaw dafa xaw xaw du niveau rap hip hop au Sénégal yow xam nga nu mu donc mais naka la demee man kañ. non maanaam dafa maanaam dafa dafa dafa amul benn benn benn benn njëriñ. Ah parce que léegi rab bi dañuy gis kalaasante xasante waxante maa fi écotrip. kalaas tagg sa bopp léegi. mais loolu bokk bokk na ci ci critère rab. non c'est bien sûr. waaw mais dafa bëri. dafa bëri parce que. parce que ñun ñëpp xam na ne man damay éco trip xam nga damay freestyle damay damay damay clash mais aussi tamit mais boo ma freestyle TMTC avant nous dem bébé maman rubrique bébé maman ndax moom saa yu ñëwee rek indi lu gën a am njëriñ ndax tey li muy waxtaanee nga ko muy pourquoi euh, chanter est-il bénéfique pour les bébés freestyle yow yow freestyle TMTC Madame toi même tu sais Beaucoup ko freestyle hmm. su ma defee <laughs> yee toi tu sais TMC da ngay fee. TMTC ah mais man damaa jàngul nag jàngu ma. man dama lay wax non. toi même tu sais la man. non naa lay non bàyyi naa bàyyi naa non man non man la mais non bàyyi naa naa bàyyi may fay parce que parce que tamit TMC toi même. dem ci CFEE da ngay gis mu head neex I boy you left fast. ass to get you yu lees dañuy béggee fii Cheikh Bamba Dieye yéeg me bëgg réew mi ne moom 2019 hmm. <laughs> <laughs>

Pourquoi chanter est-il bénéfique les bébés. voilà solo bi nga xamné né woyal Nam la euh, di ngay di sa dom, sa sa wala hmm. sax sa xarit. Euh, nit ñi dañ koy dañ koy way def de façon spontanée peut-être nous xamul lek moy euh son bi nga xamné génn ci voix bi dafa am ay étude euh, étude récemment rek université bu Montréal. Sénégal ñu def ko ci ay xale yoo xam ne am moins d'un an seen at matagul ñu gis ne ne xale yi buñ leen di woyal ñooñu euh, dañuy gis ne pour ñu calmer calmer leen dafay nekk deux fois plus longtemps que bu fekkee dañuy wax ak dañuy wax ak moom euh, loolu di wane rek la musique apaise comme lu ñuy wax adoucit mm-hmm. euh, te ñu xam ne ne li jëm ci xale la plus belle des musiques mooy c'est la voix

lu mu def da nga ci ànd ak moom. naan ko ba jaar dof. donc dañuy jiital xale ci loolu. xam nga xale. d'accord nga woyal ko non seulement ñun suñuy valeur laa lay <laughs> wax. am na benn woykat booy kuy laal Ma dem sagar ga ca laayande kuy laal ndaat saay. Hmm. kuy laal sama doom jee. Hmm. may ñaan nga ba dal ni sa ndax ba nga feral samay raxoon. Mm-hmm. donc kooku mi ngi am eh, benn message de communication bu muy jox bi. Mm-hmm. te gis nga woyal sa doom. Mhm. man damay contrôler le xale jooy ñu ne nan woowi jiw te papaam nekk ci kër gi. Mhm. xale toujours nga koy jox exemple ci papaam. sa doom dafa sa jabar dafa téye sa doom naan ko rafet bàyyi. borom baay bu baax bi. Hmm. wala doom ah yaay def lii ba sa papa ñëw toujours ni nga woon xale bi kon yow sa papa muy kilifa. d'accord doom noonu lañ koy wooyee di ko jox exemple ci baayam di ko gënal baayam naan ko rafet bàyyi sa baay de laay xaar. bu hmm. tàggu saane bu ñëwee sama sañse bi du ma ko woon kenn ku dul moom. Hmm. yooyu dafay <laughs> dafay am benn bi muy def ci kër gi. te dafay neex borom kër gi tamit. yow Nicolas ko faral nga di woyal xale. <laughs> dafay neex Pape Ousmane. <laughs> waaw waaw waaw waaw waaw waaw. Ah. xam naa ne daal euh, loolu bokk na ci woy yi nga xamante ne yàggul ah mhm. mu ma koy def mhm. d'accord euh, léegi nag damay dama koy xool daan ko mais sëñ Fallou sëñ Fallou xam nga. ba man man man nag dëgg am naa sama doom bi mu jëj du Mouhamed moom. waaw peut-être xam naa li mu judd ci fin <laughs> kii bi moom lu mu mënti wax ne góor gi moo bari doole mu ne ay waay moom daal daal bëgg na ko moom. <laughs> mais ñu laaj monsieur le ministre ah, il est parent il est papa donc moom. li ma a li ma si gën a neex mooy li Sala doon wax léegi parce que gis nga ñun dañu am une culture. plurimillénaire te nit ñi xale yi xam xamuñu ko ndax société africaine dafa jiitu yàgg lool lépp loo dégg dama bëgg mu ñëwaat ci baat yi ci mujj. ci waa baat yi nga ngeen ngeen mën a xam lan mooy deug deug berceuse. Mhm. ci ci wala. Mhm. gis nga gis nga li ñu naan wolof dafa ni ku nekk bugulo ku la gën. Mhm. waye ku nek bu nga jur dom bu la gën la dëgg la. kenn bëggul ku la mujjé adina waye ku nek bu nga jur dom mu mujj la adina deug la donc il y a une relation fusionnelle bo xamé ni le verbe et c'est quelque chose de très important c'est pourquoi même quand Dieu même dans les écritures saintes si tu vas dans la Bible on te dit qu'au commencement était le verbe et le verbe était avec eux. quand Dieu veut quelque chose il parle et c'est pourquoi am lui celui qui parle crée

Mm-hmm. man da man deratu gor boy déggee ponkal taxaw naan deratu gor mo nek ci man mm-hmm. c'est que par le verbe dans son environnement premier mm-hmm. yar nañ ko inculqué nañ ko ci berceuse yi

jam ga très bien lii yëpp dafay firnde rek ah. ayoo nen bi nen waaw mais yow yow noo koy defee yow yow yow. man bëri na bii ah, mooy suñu def princesse euh, man en général comme euh, Cheikh Bambadier lu mu wax comme vertu wala ay qualité yo xam ne ne bëgg nga nekk mu nekk si mom, hmm. man sans pour autant ma xam ko mais naturellement dama ko daan téye di wax la gentille princesse et est sage.

bon non man sérieusement nag musuma. na ñu dem plage Mali. non nga am na loo bëgg a wax de ah. maa ngi jàng. yow nag loo bëgg a am na benn histoire.

yow nga koy xaal pulaar ngeen nekk ay bon tubaab yéen ñu leen bàyyi leen làkk xale tubaab. non non non franchement xam nga. xam nga xam nga sama benn dafa doom dafa jóge France ñëw. vacances jamono yee ñu ànd. mais xale bi man wolof laa koy làkk. dëgg ñaataat laa woon. est-ce que amul ay 5 ans 4 ans. xale la ni ah, ah, ah. Eh. la toll nii. ñebe ay pose question manako hé bi Sénégal yow sa bay wolof la sa yay wol ben lak wolof. mais si ma mais yow bambara nga mais mais làkk ko bambara. Eh. yow halpulaar nga lak ko halpulat d'accord ah mais hmm? mais cukuleel. ah cukuleel mooy mooy xale. ah mi mi d'accord miriam miriam miriam il faut nga jox ñu ci sa xalat ah ci li nga xamantene mom lañuy waxtane ni eh, yow yow boy def yow. j'ai pas d'enfant Nicolas. ah aw ma doom da ngaa fàtte. waxuma la am nga doom dama ne. mais am nga ay ay ay neveu ay ñees ay xarit yu am doom léeg-léeg nga fopp leen ñu jooy sa kaw loxo ah. looy wax en général man daal sama yaay je sais que bii lay may mama yano jaabe artijan non mais bul reetaan dama bëgg dégg li ngay wax wàccal waxal waxal waxal voilà ano ɗum bamayano jaaɓe arti janngo jaaɓe sodana kam ñaale ah. léegi loolu lu ñuy tekki noonu mooy sa papa moo demoon ci àll bi bu muy ñëwaat mu àndaaleel ma kii nag nag mag mooy li nga wax mooy li ministre ah, ah Aïcha Sall waa de xale bi femme bi dafa am doomam mu feebar mu ñëw ci biir gaar war a jël train hmm. xale bi dentition yi metti mu bëgg ko fajal xale bi hmm. li war a lox boobu ñu naan ayoon nen ne nen ne nen ku may bindal téere ma yóbbu ko Saalum saalum ñaari néeg la ñetteel ba di waañ wa waañu waañu buur la dafa téye xale mu feebar ci gaar mm. xamul ndax sëriñ nga fi bu ko mën a bindal téere pour dentition xale bi ni mu mettee mu mën a set mu téye doom ji naan aayoo nenne sama mm. doom ji de mi ngi jooy mm. kan moom mooy bindal téere ci yéen moom saalum la dëkk mu ni ma yóbbu ko saalum ndax saalum ko sori ndax ñaari néeg la te ñetteel ba di waañ wa te waañu waañu buur la maanaam fa muy jot balaa ma faa àgg mu naam xale bi des samay loxo ku may bindal téere boo xam naa ko mën a yóbbu ba saalum pour mën ko delluwaat ci kër bàyyi c'est important voilà Dégle la laaj de ah. et pour finir euh, Fatima. en fait en dehors de de de làkk euh, euh, en général comme nous ma ko son bi nga xam ne ne moom mooy dégle dëgg la yi mën na yu du yu neex mais aussi li nga mon ne jëm langue bi mon na langue bu nekk. parce que dafa am ben femme bo néné ne ne na mon bu mu ëmbee ci lay dans doon wayal Domam doomam mag juddu am quatre ans cinq ans mu koy wayal ba tey am onze ans. Mm-hmm. nee na way bu mu ko daan c'était en espagnol espagnol mu gis ne ne xale bi am na 11 ans ci làkk yu mu xam yëpp espagnol moo ko ci euh, gën a neex mhm. mais même bu bu dul sax benn way mën na nekk par exemple boo bu fekkee da nga mel ni benn taalibe nii monsieur le ministre mhm. nga wayal ko ahbab Toura. Mhm. waaw nga wayal ko ahbab Toura. mais mais est-ce xam nga ne kii moo gagné est-ce xam nga ne <laughs> euh, Myriam moo gagné parce que monsieur le ministre li mu doon wax dafa tombé net ak li nga xamante ne moom la ah monsieur le ministre bu la neex nga wayal ko xasida gis nga xam nga yooyu yëpp li muy indi rek mooy relation bi relation bi humanité xam il faut pas que ñu désincarner suñu bopp parce que doom boo ko relation charnelle bi ngay am ak moom mhm. confiance bi ngay am daf ko koy daf ko koy insuffler environnement bi nga koy dund ak muy dund di fa màgg mhm. dafa am solo lool dañuy wax ni sax boo ëmbee sa doom di mer boo kilee da ngay am doom ju perturbé donc ñuy ñaan nit ñi toujours ñu xam ni l'éducation du jàggee ni rek eh, eh, bàyyi lii bul def lii c'est un global. jàmm mi ngi njëkk tàmbali nag si ñaan. boo demee ba nekk jigéen toll fi nga war a toll. ñaan sa borom mu may la borom kër bu baax. may la njaboot gu sel mucc nga ëmb sa doom. di ko ñaanal parce que yàlla mi ngi nekk ci eh, ci li ko jaamam di ko ñaan. dëgg ba pare nag góorgóorlu sellal sa taxawaay selal sa yéene.

publicité d'El si euh, le temps ñu mën recevoir ñeneen sur le plateau de toi établissement Al Rehab Sénégal parfum de classe de ñoo indi fi ci Sénégal di xéñ lu neex te di yag ci arrivage parfum court ak jigéen ay qualité de parfum yu amul fenn xolal ma parfum Pacha nga koy jëfëndiko fo rombu ñu gestu la li ngay ak sa personnalité mengo. Parfumage, ci bi le fekk bar. xet bu neex la wax nak demul parfum bi amna des na de alrakaab Sénégal ñu leen indil parfum Sparky connaisseurs yi kontaan nañu ndegte la ñuy àndal bu ñu déggee Sparky ndax parfum bii benn parfum gënu ko neex nanda nag parfum bii am parfum 919 xet bu neex la wax mané établissement Al Rahab Sénégal wërngal képp fo dem fekk fo parfum bu original mën ngeen wo ci 77 637 6419 19 70 591 17 17 su leen def 33 823 84 92 fépp fo dem fekk fo parfum yi nga xamni Al Sénégal ñoo koy jox Pacha Taj Tramin Sparky nanda parfum 919 tout parfum pour neex la loi café mi ngi nekk cité 2 en face sami municipale si n'y voie liberté 6 liberté woo 33 867 55 00 qualité du alhamdulillah ils sont toujours nombreux euh, depuis euh, Kaolack Ziguinchor Fatique na à point d'abonnement yep ñu ngi foofu di leen promotion bi mu ngi continuer di wéy euh, abonné 3 mois ñu may 3 semaines bo abonné 4 mois 6 mois ñu may 6 semaines ba ci li nga ne 12 mois ñu may 12 semaines donc loolu yep ñu ci groupe SCAF Telecom ànd TNT muy télé numérique terrestre fini l'analogique et bienvenue le numérique ñu ciy sargal bu baax ñi nga ne ngi wéy di abonné ci loolu nga xamante ne promotion bi jagleel nañ leen léegi nag dañuy ànd ak Myriam Myriam Cissé Njar Meew moom tamit mu ñëw ci trucs et astuces mode e beauté ànd ak Bafodé Bafodé muy styliste nekk un grand créateur di def ay yëf yu mucc ayib nuyu naa la sant naa la waaye gërëm naa la bu baax yow Myriam noo def ak sa invité Nicolas ñu ngi fii nii ak Bafodé Bafodé nekk ben créateur boo xamante ne stylisme lay euh, dafay def ay création d'habits mais plus connu pour faire de la récupération c'est-à-dire que ay sac de pommes de terre lay utiliser defar ci li nga ay utiliser sac de pommes de terre sac de pommes de terre voilà defar ci li nga xamante ne mooy ay ak dàll mhm. mais également ba ci socc sax di ci defar li nga xamante ne accessoire Bafodé est-ce que mën nga ñu wax un peu yow yaay kan ginnaaw bi ñu ni tu as eu ton BEP en comptabilité mën nga ñu wax un peu ci sa parcours balaa nga créer li nga xamante ni mooy la marque Moda Euh, Salam alaikum Marie nuyu ñëpp euh, di di leen sante ci dalal la DTV. Mhm. et particulièrement sur TNTC. voilà man may bafoudé, euh, je suis styliste créateur d'accessoires de mode. comme nous l'avons ko après BP comptabilité la def suis comme comptable. mais ci mhm. euh, dama cumuler les deux. d'accord Comme métier professionnel en même temps mon talent artistique. Mhm. donc si l'on demande un watch en même temps nekk di accéder si les écoles de formation professionnelle en stylisme euh, nekk fa comme professeur d'accessoires en même temps def naa ko sept ans euh, ci vous la toog euh, daal di xool ne peut-être jeunes amener les gens leneen li nga xam ne moom bëgg. absolument ni population bi tam am na leneen li nga xam ne moom lañ gën a yëngu. Mhm. comme nous ko ñëpp ko ñëpp soxlaa mooy li nga xam suñu culture. Mhm. ci l'a di inspiré wu ci environnement bi daal di créé benn label bi ñuy wax Modar ci laa commencé maintenant di créer ay vêtements ay hmm. yére ay accessoires yoo xam ne yenn yi dama ko inspiré ci environnement mais yenn yi aussi damay xalaat li nga xam ne moom mooy delloo suñu cosaan hmm. daal di tibb ci moderne bi daal di koy teg créé ko nit ñi mën ko di sol di dem liggéeyi. Hmm. nit ñi mën ko sol di doxantu nit ñi mën ko sol di toog ci kër gi. di toog ci kër est-ce que vous pouvez nous parler de la marque Modar wax ñu kañ moo nekkoon la date de la truc de création Modar. Modar je créé en en 2011 bu may quitté l'école de formation suis di à parce que professeur accessoire accessoires, euh, ils dama li ci en même temps dama doon euh, aider les élèves que si si quelques techniques de créativité yi nga xam ne dinaa leen dinañ am ay artistique mhm. bon ci la chalatne, on euh, a na am symbiose bu am entre entre la mode mon stylisme bi ak ak l'artisanat mooy li nga xam ne liggéeyu loxo la d'accord si la créer, mode bi mode modaar bi mode art c'est mhm. artisanat mhm. donc mooy boole ko mu mode art donc le mode dafa commencé si benn club club de jeunes créateurs nous récupérons les jeunes yi nga les jeunes diplômés en mode stylisme regrouper regroupons pour ñu promouvoir les scènes. ça veut dire que c'est formel quoi. voilà c'est formel. donc nous les am la. d'accord di récupérer di leen wax ne tey jii li ngeen produit yi ngeen defar war na mën a dem fu sore tey ji waru leen xaar euh, benn styliste bu invité télé. Mm. wala invité leen défilé war ngeen mën a créer seen propre défilé war a mën a wane li nga xam ne moom ngeen di def. si leen créé si leen créé Modar euh, mu tuddee que le jeune euh, club de jeunes créateurs. ci la label boobu daal di juddu yéen ban style ngeen di incarné foofu noonu ci Modar. voilà li ñu gën a incarné mooy li nga xam ne mooy suñu cosaan li nga xam ne tey jii ci Afrique. Afrique lay wane. consommons local voilà voilà consommons local. té li euh, ñu gën inspiré bo xolé la majeure partie suñu couleur euh, da nga ci gis noir noir boobu muy nek après tout nous sommes des noirs nous sommes des africains. Mhm. loolu warna am lo xam war nañ ko mëna conserver. et bo xolaté euh, yeneen couleur ci moy euh li nga xamné moy valoriser style africain moy souvent di nga gis ay bant ci suñu yéré di nga gis ay ay sac de pomme de terre di nga gis par exemple ay ay design yo xamné né carrément définir les valeurs de l'Afrique donc euh, côté vous lañuy parce que bëgguñu euh, aussi nit ñi di solo di ji am nañ hmm. pas li nga carrément lu mais tay ji moderne comme yow chemise bi nga sol vax c'est carrément euh, c'est stylé bureau le plateau c'est vraiment c'est nice donc tu es en Afrique c'est toi-même tu sais hein. Fatima c'est toi-même tu sais c'est Nicolas Hanggang gumawa mo, Mares.

voilà loolu euh, c'est une très bonne question parce que déjà Modar a na benn projet bu tous les Modar Bébé et je crois que am na benn vidéo bu waroon jàll sax di ngay gis ay xale yu def shooting ci biir mhm. sol euh, ay t-shirt yoo xam ne c'est original t-shirt lañ jël euh, génnee boole kaak ay tissu vax yoo xam ne dina définir benn sorte de design comme ni ñu ko waxee sànq si si si rubrique il a elle a parlé de de de de comment chanter li ñuy wayal xale ban njëriñ la am mhm. mais couleur yooyu aussi ñuy définir si yëre c'est très important si moteur de l'enfant donc voilà qu'on ne njëkk définir mhm. et aussi aujourd'hui ce ma duggee ci bamminéré yi nit dugg ci bamminéré par exemple jënd fa ay tissu yoo xam dafa cher ay produits cher mhm. ma boo xoolee tey jii ñu bëri duñ fa dugg ñu bëri duñ fa dugg tey war nañu mën a créer benn style bamminéré boo xam carrément africain et pourquoi pas un berceau anti africain mhm. pourquoi pas euh, grenouillère? artiste africain si si pourquoi pas couvre bébé parce que man moom xam naa ne kër ga moom am naa drap boo xamante ne ay drap la sax ah, njaxas la moom la ñuy lal ci suuf suufu suuf laata ñuy lal bu weex bi guddi bu jotee ñu dund donc il est temps que aussi trousse bébé bi ah. euh, mu nekk carrément loo xam ne c'est en tissu pur sans coton. Ah. carrément assuré Alaaji mon ami. waaw dafay c'est bien euh, Alaaji du ñak mu am lu mu ci bëgg a dolli euh, laata ñuy bàyyi Myriam woyal continuer mais tamit amna ay mannequins yo xamante ne ñu ngi fi euh, dinañu commencer légui def sen défilé. wa xam nga nit mom li ñu nit ku nek balaa ngaa jéggaani da ngay defal li ci sa réew d' donc dañ ko ci féliciter parce que moda bobu sax man peut être amna na Sofino moda wala da na ko dégg aussi peut être xëy amna lu ngeen bokk wala tur yi daje mais moddu dafa nekk loo xam ni euh, da ngay jël li nga moom parce que nit ku nekk boo wàccee ci réew jàmbur ni lay xamee rek mooy ci sa colin ci lay xam ni ki africain la wala kii sénégalais wala africain mënoo dem Europe ba sol costume bu cher ba mu jaaxal tubaab ba soloon njaxas chemise bi rek tey Nicolas bu ko wàcce woon Paris tubaab bi nañ ko topp di ko foto kon donc loolu dañ leen ci encouragé ñu jël suñu yëf waaw. <laughs> Les fille de France. Ah, fille de France, voilà. C'est Dakar, c'est Dakar, c'est solida. Et c'est Nicolas, c'est Détivi. Euh, pour, terminer, pour terminer, ah, mën nañu wax en attendant euh, mannequin yi commencé dugg euh, pour def seen défilé mais mais bàyyi nga jeexal. Ah, légui pour jeexal Nicolas bëgg na un peu mo wax ñu sac de pommes de terre yoy processus bi nan lay démé parce que yeen say nga dajeeg sac yo xamante dafa ñaaw et tout donc nan lay démé ba aujourd'hui nga mën ko jël def ci li nga xamante moy ay yére lan la processus bi day numuy démé da ngay raxas ba pare passé door a kii nan lay demee exactement nga waxaale lan mooy sa dernier moo joxe waale sa adresse aussi. donc euh, loolu daf ma dama dama ko inspiré wu ci euh, suñu yaay yi euh, bu njëkk ba dañ daan jël ay sac pomme de terre bu tawee ba pare di ko def ci buntu yi. su paree bu demee ba nga xamné ne soxlaatuñ ko dañ koy sànni. mais bo xolé tay ji fosse septique ci dañ nga ko daan gis euh, muy muy terrain ndox bi di jàll donc am ben dégradation ci environnement bi si la né mo il faut que ma trouver benn solution li war naa war am luma ci mën def. Mm. premier jour bi ma jël ko foot ko paase ko gomé ko. weer ko ba mu wow daal di koy lem dag défar ci dal défar ci yéré defar ci saak.

Bafodé styliste créateur mu nekk ko xamante dégg ngeen euh, li nga xamante mom la indi ci innovation de taille c'est important mais ci kanam touti euh, dinañu fësal yeneen i modèle amna ay mannequin yu fi nekk fas défilé euh, ci ay produit donc merci beaucoup à Myriam trucs et astuces mode beauté on va se donner rendez-vous jeudi inchallah bu ko défé rek nga wat kenen ko gëna xarañ comme ni ngeen ko xamé elle est sur ce plateau en compagnie de son invité Moudi di Nanette borom 14 millions de problèmes tay nak ñu nar jéxalé li nga xamante moy tontine manam nat ñu nar ci and ak euh, oustaz Mamour Fall c'est parti nati ci rew mi gëla laaj boole ca fulaak fayda ba ñepp nango du non ah? xamoo asan bu boy ko ah. lu ma ci xam est-ce que jiituwul sama judd. ah bon ah c'est vrai que yow <laughs> yow doo keroog.

tàngaay bi. tàngaay mom. moom fii sedd guy la kau fidek allah ma ne ko fii dégg sedd mom, la de waaye biti bi dafa tàng. Nicolas moom defe naa. oustaz Mamour borom baax la. naka yi tey ba am jàmm. ñu ngi sant yàlla très bien tey nag ne na la ci lu am solo loo xamante ne Alaaji Sall bii Guèye mi nga xamante ne moo ñuy màggale suñu plateau lu ñuy jaaxal rek dañ koy waxtaanee ak moom. waaye baax na ci tamit ñu woo koo xamante ne dafay yëngu ci loolu muy oustaz donc dégg nga li nga la la wax comme première question dëgg la oustaz man li may njëkkee mooy euh, natt lan la ci diina wax parce que c'est très important ñun nit ñi xam ko. waaw euh, defe naa natt moom diine bayul benn détail. Mhm. mais am na yoo xam ne aussi daf koy bàyyi ak société bi. Mhm. xam nga natt defe naa bu fekkee ne ay nit yuy dajaloo la. Mhm. defe naa léegi biir kër sax dañ ci dañ natt. parce que moom naa ci tuddi connaissance yenn saa nga dégg ñu ne ba déwén. Mhm. def ko comme ñoom aajara ñu def ba tabaski. Mhm. wala ba korité. Mhm. wala ba leneen ñu séddale. ku nekk maanaam genre denc la ku nekk jël li nga am. am ñoo xamante ni dañuy dajaloo. bu ñu dajaloowee ne chaque bés wala chaque la dix wala chaque nangam ñu natt ku nekk nangam ñu teggil diw. ba tey denc la. dara xaraamu ci. mi ngi xaraamee nag ci defin bi. maanaam bu fekkee ni riba dugg na ci. maanaam mu am intérêt boo xamante ne bokku ci. boobaa natt moom tontine. mën naa xaraam. Mhm. mais bu fekkee denc la. Mhm. fukki nit ñoo dajaloo. Mhm. weer wu nekk ku nekk joxe dix mil muy cent mille. weer wu nañu teggil kenn. Mm-hmm. loolu denc la. d'accord natt yi fii ci réew mi noonu lay demee waaye am na beneen point boo xam ne faw ñu soulever que mooy li nga xamante ne moom mooy fond de ndax yenn saa yi gis benn femme ñu dénk ko natt mais à chaque fois bu kenn di teggi day daal di ci retirer benn 10 000 benn 15 000 parce que dañuy wax ne dencukaayu xaalis dafa métti pour denc xaalis dafa métti loolu tamit damay laajte est-ce que loolu araam na baax na wala baaxul bu wàcc ci moom mhm. mën na manqué wala loraange mën na ci am mhm. risque yooyu day mel ni rek kii dem di liggéey Nicolas muy dem guddi defi tournage mhm. weer dégg ñu def na ko ci salaire prime de risque loolu defe naa dara nekk <laughs> prime de waaw loolu loolu defe naa <laughs> dara nekku ci bu fekkee ci cadre boobu la vraiment dara nekku ci mhm. mais nag comme ni ma ko waxee sànq nag bu fekkee dafa am leneen lu ci tegu wala riba bu ci xësee bu dugg rek moom day daal di d'accord am na leneen tamit loo xamante ne yitteel na ma parce que ñu ngi nekk ci période retour de la Mecque ñu ci bëri aji ji aji ji nañ ba ñëw est-ce que teggi euh, natt dem Màkka araam na parce que xam nga lu tax may laaj ci question bi boo teggee natt dem ñi nga war a nattal bor la te booy dem màkka waroo bàyyi benn bor donc c'est un détail boo xamante ne <laughs> c'est un détail boo xamante ne jaaxal na ma tuuti. Euh, bu mu la jaaxal. Uh-huh. booy dem màkk. Uh-huh. facture nga war a départ. nga départ dem aéroport facture courant ñëw sa ginnaaw bor la. bor la. facture ndox ñëw sa ginnaaw bor la. Uh-huh. seen rek ñëw sa ginnaaw bor la ku yor kër gi. du yow. waaw. ñiy dem ñu est-ce que am est-ce que bëri na nit ñu amul bor donc na fekk bor bu nekk bor boo xamante ne mën nañu ko ba dafay bi yàlla bi ñu wax màkk dane li man istataa ilayhi sabila mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ku ko mën ci kàttan ku ko mën ndax natt boobu nga natt sa alal la denc la comme ni waxoon sànq rek fukki nit la yu bëgg dem wala ñaar fukki nit yu bëgg dem jaamu ji yàlla mottali ji seen juróomeelu ponk xëy na bëgg nañu dem def ko mënuñoo sàcc. mënuñoo ñaan ñu ne nañu dajaloo. d'accord bu ñu dajaloo ku nekk yëkkati. Mhm. la nga xamante ni moom lañu tënk ci som joxe ko nga dem. waaye boo demee itam. Mhm. bu boo fa desee. Mhm. njaboot gi dara ñu fay natt bi. dëgg la ñu bàll ko. Ah, dañuy fay natt bi mm, ah, la dañ koy fay. bor la parce que engagement la. waaw yàlla bañ na ko bañ a bu ngeen seexante bor sax da ngeen ko da ko bind. waaw. ida tadayantum bi dan ila ajli musamma faktubu waaw bu ngeen di sëxante lu dem ci walu doxlant na ngeen ko bind kon loolu lu am solo la sank rek maa ngi ciy waxtaan ak suma xarit maa ngi koy suma soppe suma kilif maa ngi koy de passage Ahmed Khalifa ñu ci waxtan sank lu yaato yaato ci ana ban kàddu lan ngay tàggatoowee ah ci li nga xamantene mo dem ci walu l'islam ci ujaaj bi ci tontini li nga xamantene indi waxtane nga ko ana lan nga ci tàggatoo ujaaj li ma ci tàggoo moy dégg naa ñu bëri di critiquer nganale mhm. baax na baaxul li ci lislaam wax lislaam waxu ci dara ndax ki dem ziyaar ji yonent bi sa alayhi ñëw fekk ay mbokkam yu bëgg yonent bi muy bëggalante ak ñoom mhm. dara nekku ci mhm. bu fekkee nag génnul cadre lislaam wala yàq dara nekku ci ku ko yàlla mënuloo ngay dem tàggu say mbokk ñu ñaanal la nga am xajjan mabruuran boo fa jógee boo ñëwee Mm-hmm. ñu ñëw seet si la nga bëggal leen bu la yàlla joxee dara nekku ci. d'accord très bien bu ëppee parce que yenn saa dañ ciy faral di ci seetlu benn puukare ay yeebeeg am na ñoo xamante ne sax yëgle bi dañ ciy dem ba ci def ay track man gis naa loolu. track pour wane ne. mais mais dina ci tontu nii mais dina ci dellu si waat léegi moom dañ ko war a hmm. utiliser. comme oustaz u TMTC. waaw saa yu indee rek loo xamante ne Fatima léeg-léeg mu indi loo xam day soxla oustaz. wala yow mu daal di euh, teew mu daal di mun ci indi ay firnde euh, ma bàyyi la rek li muy wax noonu rek loo ci mën a sànni en 10 secondes. li ma ciy mën a sànni mooy dina lek leen nan leen tëb leen yaax ciep sax añ ngay añ ngay añ ñu jaañe ni megen ñu baal ma nga añ bu suur def li fir'aun daan def ti bu lekk ti bu sànni ah parce que fir'aun mom bi nga xamantene musa bëgg naka ko dafa ñu nekk yow da nga nay motax ku tour lek sa dekk ñam nga ray ko mu ne comme loolu li comme may bu xaaral bu tibé sax ti bu hmm. ci lako yalla dina to Ah. kon yàq ya moom yàlla bëggu yàlla bëggu kulu washrabu wala tusi ndeysaan jërëjëf oustaz Mamour Fall sant nañ la gërëm nañ la bu baax ci disponibilité bi xam nañ ne jamono yi nii euh, jot yi dafay néew waaye nag euh, bés ni tey euh, toi même tu sais fas yéene naa fas séq ak yow kóllëre bu toll nii rek lépp loo xamante ne yiteewoon nañ ko bëgg ci lu mel ni seen xalaat dinañ la ci woo ah, nga ñëw indi ñu ci ay leeral ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax kii nag moom mooy Aba Aba album bi <laughs> Ah, donc doomu Alaaji Sall bi géwé ah, ah album bi album bi concert yi soirée yi est-ce que mën nga ma expliquer un tout petit peu ci lan nga nekk waaw man instant bi moom sama mixtape laa nekk sa mixtape waaw parce que enregistré naa lépp mixé nañ lépp quoi donc def naa ko douze titres mm-hmm. benn titres waaw mixte fan la ban studio. euh Bouzot sama tëngeej la quoi sama ben boy la. kan moy kan moy kan moy gérer arrangement bi réalisation yeeg affaire non man mom sama sama sound maa koy maa koy maa koy réaliser sama bopp wala kenn sama copain bi. d'accord si jàpp. donc su ma amee lu lu des mu ne ma fii des na defal lii defal lii parce que moom bon sama sama sama maestro. yàlla may na quoi waaw waaw waaw sama maestro la quoi donc. 24 décembre laa ko bëgg def concert génn mixtape bi mais ci carte mémoire nag laa koy def damay indi beneen affaire. lan fekk xam nga yow. waaw ah, mooy loolu voilà xam nga léegi jamono bi ñu toll nii. Ah.

ay poème je sais pas ak ay yo xamanteni dama ko dan dégg. Hmm. ba ma ah. musique day hmm. donc justement lu tax nga choisir euh, genre non parce que musique lolo ko hmm. xam nga xam nga tay yow musique tay mënoo koy def yow nga ci bi. di galérer di gis ñaawteef yi di gis yëpp. yow léegi ngay def sa musique te doo ko ci wax. loolu kay jarul ngay musique sax. ay rëmtaam bi tam yaa asugee. man ah. du ma ko def. <laughs> Eh, eh, eh, très bien léegi xam na laa bëgg. nga yéeg dem ak sa maestro nga defal ma morceau bu ñu tëjee plateau bi ah, bu ko defee léegi mannequin yi duggaale en même temps ngay jouer mannequin yi di dox ah. wala da nga bëgg gërëm sant gërëm. waaw man waaw bëgg naa sant gërëm. ay ayca mu gaaw 5 secondes. waaw d' abord damay sant sama waa jële. d' accord mm, di ko remercier. ci kii Pap Thiam la tudd. Pape Thiam d' accord sama nami. dëgg la euh, Ibou Diouf. El Hadj Tall bi sama nami. waaw yéen ñëpp sama nami ngeen. Ibou Diouf sama manager. d' accord. Euh, euh, sama papa. ak sama yaay. sama mbokk yëpp. dëgg la waa famille Diaguen yëpp. waa Guy Mouride yëpp fi ma dëkk Colobane Guy Mouride. Mm-hmm. xam nga ñun mooy loolu dañu xamul maire bu guerrier quoi. mais ah. man maa leen di teewal. donc eh, eh. Colobane Goumiri laa dëkk. d'accord dëkk boo xam ne moo gën a riche ci Sénégal fa la <laughs> Sococim nekk. très bien c'est important. lépp ay dox Aïcha wàccal ma woon la. wëndeelul cëm Abba Thiam koy <laughs> woowee eh, kan moo koy doxal yow. xoolal ja xoolal njaam bi xoolal njaam bi njaam bi <laughs> Aba Thiane waaw taxawal noonu euh, très bien merci beaucoup euh, ñu àndoon ak ki nga xamante ne moom mooy Aba Thiane Aba Thiane nag euh, nekk koo xamante ne foofu ca Tëngéej la dëkk Aba Thiane Aba Thiane bu taxaw sama kanamu caméra bàyyi li ngay def taxawal benn kii voilà très bien donc nii lañ ci doon ànd ak yéen mu doon toi même tu sais yaa ma gën a xam wala maa la gën a xam merci à oustaz Mamour Fall sant gërëm bu baax ki nga xamante ne mooy Alaaji Sall Bigué mon consultant et yéen ñii vous êtes ravissante resplendissante machallah ni ngeen def

ngiyalwa maseta ndongola ngiyalwa ndongola ngiyalwa maseta ndongola ngiyalwa jiginat gingay tej sakaf rap ba fajar jot nga jog waxu malaak nit ki jóg leen ci seeni soxla jóg leen ci seeni jàng jóg leen ci seeni bëgg-bëgg suuba ñooy màgg li ngeen di def ci école yi mu ci yi ni gone gone gone gone yar lanchiwa ni gone gone gone gone ler lanchiwa ni gone gone gone gone jamma lanchiwa ni gone gone gone gone yermane lanchiwa du yaa ngi ko bàyyi mu dem ci di yalwaan te bu sama wai xam nga def ko bàyyi oto di te bu sama wai xam nga def ngiyalwa maseta ndongola ngiyalwa ndongola ngiyalwa maseta ndongola ngiyalwa xamul dara du gone mënul dara du gone jéemul dara maga dimbali du gone xamul dara